ne comme àdduna war këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaan di ci ànd benn ànd ak ñun ci émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxirlu war a suñu farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ leen ci seen tudd di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal ñëwati Dubaï ñëwati Dubaï ànd ak ki ñuy faral di indi Dubaï ki nga xam ne que na ko ñeme na ko di ko def keneen ku man mën na ko def kooko di kan Cheikh borom produit yu baax yi boole Tektal TV équipe ba ñëpp indeeti leen Dubaay euh, defe naa bi mooy ñetteelu yoon nag ñuy ñëw Dubaay de xanaa fi nekk nii nag instant bi Tektal TV ak Cheikh borom produit yi maanaam euh, cere soow la daal mburoog soow la mburoog soow la ku yebu bàyyi leen rek te ñaanal leen ñu ànd jëm ci kaw ci kanam instant bi nag fii ñuy defee émission bi. Euh, Cheikh daal borom Dubaay la moo tax naaram bi naaram bi yàlla fi yàgg te wér de instant bi hôtel yi sut ci àdduna bi est-ce que bii sutu ci foofu la nekk defee émission bi yóbbu nañu kaw asamaan ñu defee émission fu ne Cheikh borom produit yu baax yi mhm. ñëwati nan euh, Dubaay sa dëkk mhm. sa dëkku naar bi ak mhm. naar yi waaye dafa am biir naar yi dafa am naar boo ci gën a fonk nag <laughs> boobu la mbir yi nekk xuma daal léegi nag àdduna wërngal këpp bi lay seetaan Ah, asalaamaaleykum Cheikh maa lay siyaar di nuyu sa équipe di nuyu képp kuy seetaan Cheikh prom produit yu baax yi ak foo mënti nekk di nuyu samay mbokk sama yaay sama papa samay mag macha allah di nuyu samay client samay cliente fépp si àdduna bi macha allah di nuyu waa Sénégal gépp waaw di nuyu ñëpp di nuyu waa Dubaay fi ñu nekk nii macha allah ah, fàttewuñ kenn daal di nuyu waa Afrique fépp suñu clients yi Amérique Espagne Italie France Suède. Angleterre Sénégal Gambie Mauritanie fàttewuñ fenn daal di nuyu sama clients yëpp yëpp yëpp fàttewuñ kenn jaa ngeen jëf. Mhm. jërëjëf euh, Cheikh borom produit yu baax Cheikh bi instant fi nekk li ñëw ci Dubaay. Mhm. man maa jàpp ne ñetti yoon la. Mhm. mais euh, ànd ak Tektal TV. di dépenser chaque jour ay millions. di ñëw. di dëkk ñëw. loolu mais fi li nga taxaw fan la naar bi la wala produit yi la. <laughs> Cheikh sant yàlla rek naar yeeg produit yi yeeg. ñi ñu defal lu baax ñu koy gis ak macha allah ñëpp la hmm. xam nga ñëpp la nit ñu ñuul ñeeg naar yeeg saraxule ba tubaab yeeg hmm. macha allah daal xay na tamit naari dañoo gën a macha allah hmm. ëppante doole <laughs> mais sant yàlla daal lu mu ci mën a demee seex moom ñëpp la fi nekkal xam nga macha allah daal sant yàlla bu baax xam nga jaay lu baax moo am solo di jox doomu aadama lu baax moom solo xam nga lépp looy liggéey rek nga teg ko si xam-xam ak lu leer bañ cee tappale bañ cee naxaate amul foo mënta dem cheikh xam nga amul tamit loo mënul am tamit aussi nga teg ko si lu leer xam nga bañ a tappale bañ a naxaate bañ a dox si caaxaan macha allah sant yàlla bu baax a baax xam nga sant yàlla daal def nañ fi ay émission dem si kaw asamaan si reere fa xam nga macha allah xam nga yeneen ñi defee ko si bateau <laughs> wala yeneen i xeet et cetera et cetera yu allah macha allah sant yàlla daal sant yàlla xam nga sant yàlla sant yàlla lépp lépp si lu leer ak si lu euh, xam-xam boo xamante dafa wérte wóor si lañ ko amee daal sant yàlla bu wér a sant yàlla bu wér a mhm. kooku mooy seex borom produit yu baax yi kon euh, fi mu taxaw dëgër na fi mu taxaw wóor na kon euh, yow tamit di nga ko soxla bu baax a baax euh, di nga ko soxla bu baax a baax numéro seex borom produit seex borom produit yu baax yi bindal 78 475 06 06 78 475 06 06 wala nga def beneen bi 78 wala nga def beneen bi 70 592 93 94 70 592 93 94 70 592 5 ak 9 ak 2 la 93 9 ak 3 la 94 9 ak 4 numéro yi am na whatsapp Cheikh borom produit yu baax yi ci numéro yi nga ko jote bii tamit nga def 78 116 15 48 78 116 15 48 Cheikh borom produit yu baax yi yow mi nekk bitim réew continuel di woote ci whatsapp bi wala appel normal da nga jàpp ne boo ko message jotu ko rek addinay message la yor. Mm. boo bàyyee ñeneen message at ko sa message day féete suuf. nga mm. dal ci kawam naan dafa naqare jot. Mm. maa koy woo ba léegi boo ko envoyé sa xaalis sax jotu ko insisté message at sa message ñëw ci kaw nga ne ko code baa ngi noonu ndax lan lim yaroo diis. seex borom produit yu baax yi. Mm-hmm. adduna wër nga këpp. Mm-hmm. yow la ñuy wax. Mm-hmm. léegi seex. côté boobu tam loo ci wax maanaam jafe jot bi. Cheikh euh, jafee jot bi macha allah kon ni ma ko faral di waxee rek ku nekk xam nga booy def lu baax wala ngay liggéey lu baax wala nga nekk si lu baax ñëpp lay soxla te ñëpp lay soxla di la message ñii di la woo te tamit ñëpp nag xam nga jafee jot bi tamit ñëpp mënuñoo woo ba pare jotandoo ñëpp en même temps il faut ñu am compréhension ñoom clients yi si yi si loolu mm-hmm. euh, li ma ko faral di wax tamit bu fekkee ñi nekk Sénégal bu ñuy woote euh, nañu jënd crédit pour woote buñ ma bëggee jot comprendre nga incha allah jënd crédit pour woote laaj ñu bëgg a laaj ñu expliquer leen ba mu leer nañ incha allahu rabbi bu fekkee bitim réew nga nekk wala nga nekk Gambie wala Mauritanie wala nga nekk Côte d'Ivoire wala nga nekk Mali wala nga nekk si yeneen réew yi nga xamante ni jënd crédit nga yeneen réew boo fa nekkee nga ñu woola Sénégal ba Mauritanie crédit day lekk crédit wala Sénégal ba Gambie day lekk crédit léegi ñooñu dina leen comprendre pour ñuy woote si WhatsApp bi wala ñu message vocal bu ñuy xetonte ñu woote si WhatsApp bi ñoom dinañ leen comprendre mais bu fekkee Sénégal nga nekk euh, nañu jënd crédit woote bu fekkee dañoo message si WhatsApp bi ñoom tontu wuñ la wala ñeex leen tontu ñu insisté waat message at wala soit ñu woote par appel normal xam nga bu ñu wootee appel normal ñuy insisté parce que appel day bëri macha allah day bëri nañuy insisté rek comme boo woote exemple léegi nii jotoo wala nga toogaat ba saxal su si nekk rek nga woote waat hmm. xam nga boo toogaat ba saxal su nekk rek nga woote waat tamit te la sol direct loo kooku tamit loo koy wax ba léegi loolu parce que nit ñi ñoo mel noonu quoi ah. même bu ñuy jaay hmm. bu ne boutique Mohamed Diallo lañ bëgg dem bu ñu bëgg hmm. fekk fa Mohamed lañ xet googu quoi loolu tamit dina difficile loolu dara buñ ma jotut loolu moo tax xam nga instant ma nekkuma Sénégal maa ngi Dubaï macha allah xam nga buñ ma woowee duñ ma jot des ñu si baree baree bare bëree bëri ah, comprendre nga bu bu fekkoon dañoo woote léegi loolu moo tax ma sama assistant pour ut assistant des fois mën naa nekk Touba seeti njaboot gi xam nga ah. dem Touba comme que fa laa dëkk du nuyu waa Touba yëpp fàttewuma ah, kenn macha allah du waa Touba yëpp yëpp Amar Konte Alaaji Gay Matar ñëpp xam nga fàttewuma kenn daal macha allah loolu noonu su ma nekkee si ay affaire wala si liggéey bi yeneen affaire du ma mën a aw am jot yenn jot di wuy téléphone yooyu léegi nag boo jotee sama assistant dina la mën a kii wala yooyu wala nangam des fois man sama téléphone dama koy wuyu man moom man ma sama jot wala xeet yooyu xanaa lenn man nga ma wala dama jot des parce que damay nekk si yeneen di liggéey ay affaire wala may wax téléphone wala ma nekk si yeneen i bagage allah a demee numéro yooyu na ko gars yi jël woote soo nga toog ba sa xel nekkee nga woote waat insister parce que ñu bari dañu lay woo jotul na rek ñu mer alors que demeewul noonu mm. noonu la àdduna nit di woote tamit parce tamit mënu loolu jatandoo en même temps mm. il faut ngeen comprendre loolu même si whatsapp beeg même si lépp di message di insister di message aat wala nangam ak nangam insha allah ñu gën si bàyyi xel loolu pour ñu wax gars yi ñu gën a bàyyi xel loolu quoi mm. insha allahu rabbi noonu la demee nekk fii ci Dubaay déplacé déplacé wu ñëw fii nekk fii bii di ay yoon mu indi Tektal TV nga xam ne que seen lekk seen naan seen gént seen xalaat seen lépp moom moo koy res fu ñëwee te mosuñu ci am ay jafe-jafe suñu déplacement yëpp mu res ko. Mhm. kon yàlla ko yàlla gën a aar gën koo sàmm gën koo. suturaal bu baax a baax a baax a baax. sa borom produit yu baax yi. Mhm. Euh, Pape Alé borom deq bi. Mhm. Pape Alé c'est man maa wax borom deq bi rek dama lay tooñ. képp ku am dëkk bu rëy. Mm-hmm. dëkk bu teggin bi man bañ a wax dëkk biir bu rëy. Mm-hmm. cheikh biir am na mm-hmm. paa yi nooskat yi. seen biir yi sonal leen ñuy entraîné ñi di régime. loo man ci nooskat yi. nga xam ne que dañu bëgg euh, mucc ci biir bu rëy. loolu loo waaw cheikh macha allah biir bu rëy képp ku ko mën a am moo xam nga nekk patron moo xam nooskat nu mu mën si doon rek moo xam nga nekk jigéen wala góor. macha allah wala nga. am doom def césarienne ba pare xam nga macha allah nga amee biir wala ak lu mu mën a demee nag. moo xam biir bu mu mën a demee moo xam góor moo xam jigéen am naa ci produit yoo xamante ni macha allah. Euh, baax na trop ci wàll woowu noonu macha allah pour wàññi biir. képp ku ko soxla nag moo xam xeet boo mën a nekk moo xam góor moo xam jigéen moo xam mère moo xam jeeg moo xam. nu mu mën a demee daal macha allah am naa produit yoo xam ne naturel tamit Cheikh te amul daraay effet secondaire naturel yàgg nañ ko jaay doomu aadama ñi kontaan fépp si àdduna bi foo mënti dem si Amérique wala Espagne wala Italie wala France Gambie Mauritanie diaspora Dubaï fi ñu nekk ni même macha allah fi ñu nekk ni am nañu ko fa jaay ñuy gis résultat yi xam nga produit boobu du ay caaxaan du ay nax te boo ko utilisé dans la dañ koy naan tamit produit bi euh, bi dañ koy naan da nga def amul effet secondaire weexul tamit du daw biir aussi amul effet secondaire euh, weexul ta du daw biir non safu suukar mais comme di nga ko mën a naan daal di a naan a naan daal macha allah te du la mm. déranger benn yoon wax dëgg mm. yàlla te yàgg nañ koo jaay doomu aadama ñi si kontaan bu baax dañuy boole yeneen nit macha allah ak yeneen produit yi ñu jaay yu bare bare dañ ko jaay doomu aadama ñi gis ñu boole yeneen seen i xarit mm. wala seen am di jàmm yooyu macha allah kon ay xeetu Sadio bu seen biir wàññeeku man kii bu ñu day wàññeeku ah kon Sadio dégg nga ko ki nee na sa mbir bu wàññeeku léegi bu baax a baax a baax mm-hmm. baax a baax yow ko caag ñëpp mm-hmm. kon képp koo xam ne am nga biir bu rëy mm-hmm. te bëgg ngay entraîner di régime di corps def lu ne pour mu deñ mu tëla Cheikh borom produit yu baax yi nee na boo ñëwee ci moom incha allah di nga ci am lu kawe njort te amul effet secondaire te foo mën di nekk ci àddina di nga ci jot boo nekkee Sénégal di nga ci jot nekkal Mauritanie Gabon fu mu mën di doon dina ci jot ndax lan xarañ na ci domaine boobu ak liggéeyam mm. daal yu mel noonu mm. Cheikh borom produit baax mm. kon daal su nekk ni mu ko neexee lekk normal na ko lekk lu ko neex mais en tout cas na ko utiliser ni ma ko ko waxee te mu respecté ko kon daal utilisation bi moom nu mu koy defee pour koo xam ne que jënd na ko pare mm-hmm. di la woo jotagul la mu xam affaire biir bii nu mu ko utiliser seex ah, wax dëgg yàlla fii moom képp ku junne sa bagage mhm. ba nga jot si incha allah mhm. soo ma woowee wala soo ma message incha allah dinañ fexe nga jot si incha allah utilisation moo dinañ la ko yëgal mhm. maanaam fii pour leeralaat tamit maanaam bu ma lekkagul sa xaalis wala envoyé goo ma sa xaalis hmm. xëy na amaguma yow affaire daal comprendre nga man hmm. nga maa woo bañ bañ maa jot mais soo ma envoyé sa xaalis incha allah ma woowee jot ma si kàttanu yàlla parce que dañuy fexe sa bagage fii nag képp ku fi envoyé hmm. ah. nga dem di nga mu dem fi nga bëgg mu dem fa amul nga envoyé sa xaalis ay ay ay ay benn fan wala ñaar fan la xaar mu kii saa sa xaalis léegi sa produit def fi nga bëgg dem moo moom ak ne ko face à face heure bi la mu ñëw très tere bien mm-hmm. très bien des fois sax face à face sax gars yi daw ko yooyu man moom balaa maa tëdd si lal sa produit dana fi fi nga bëgg mu def moo xam GP moo xam ci moo xam Gambie moo xam Mauritanie wala mm-hmm. foo nekk si Sénégal nag foo nekk Sénégal ma na la ko yónnee moo xam si région yi fu mën a nekk mm-hmm. Dubaï ak Angleterre ak waaw Amérique ak DSL yaa ngi fi macha allah bagage daal fépp ma ngi fa dem wax dëgg yàlla macha allah Cheikh waaw te niñ koy koy utilisation bi tamit méttiwul dañ koy naan ba amee sa butéel un litre yi mooy butéelu yi xam nga da nga si poudre bi def ko si butéel bi ci baat ba mat 4 kudd wala 5 nga def ko si butéel bi xam nga ah. ba pare nga remplir ndox ba mu fees boo ko remplir ndox nga tëj ba mu baax nga yëngal boo paree nga a jaxasoo mu mën a kii nga teg ko une heure hmm. a jaxasoo ndox bi après nag soo maree naan da ngay naan def sa ndoxu naan très bien saa yoo maree naan si na ba sa biir fees dell après nga tëjaat nga remplir waat ndox tëj hmm. saa yoo naanee xam nga am na luy wàññeeku mais il faut nga remplir waat ko ndox daal di tëj hmm. nga daal yëngalaat bu la nga teg léegi soo maree naan nga daal di defaat incha allah boo ko noonu ba bis boobu noonu balaa moo si bis bi nga commencé bu bis bu mën nekk hmm. balaa moo si waat sa biib day commencé wàcc bu baax a baax a baax a baax ko respecté ne laa wax utiliser ko boo ko respecté boo ko respecté doo dara bu la neexee mais damay choisir bu mañ ko dugg parce que lu ñu naan la parce que jëriñ nga koy seddal ak yooyu bu hmm. fekkee da lay leen ne ko utiliser ko nag mën nga ko teg noonu ba bu la neexee waaw mais en tout cas daal nañ ko utiliser respecté ko hmm. incha allah moo gën daal léegi gis nañ yu bari parfois bu ñu doonee borom bi deq nii seen hmm. doom yi tamit day am dañuy commencé teel a jël borom deq am biir quoi léegi mën nañ leen comme par exemple ñoom ñii seen kii bi ñu jël seen doom yi commencé ci naan bu baax non bu fekkee amagoo ko. Ah, bu ñu ko commencé am bu fekkee dañoo am biir loolu pour bi kese la bu fekkee nag amagoo ko nag man loolu xaw ma ci dara. <laughs> wax dëgg yàlla doom bu am na ko nag. bu fekkee am na ko moo xam xale moo xam góor moo xam jigéen moo xam paa moo xam meer moo xam ku mën a nekk. Hmm. yow amal biir rek boo ko amee incha allah produit doo koy wàññi bu baax a baax te naturel la

Mm-hmm. waaw mooy bi wàññi biir daal parce que da ngay nàmpal baal bi ci am ah, amul effet secondaire wax dëgg yàlla nag mais xam na rek ñun moom dara xaalis si tëluñu mais dañuy wax li nga xamante ni moom moo am xam nga mm-hmm. sant yàlla xam nga loolu daal la te jaay naa ko mu kontaan su ma neexoon dama ne ko problème mu jëndaat mais xëy na xaalis bi baax na xam nga wax dëgg ak li sax kii macha allah daal. macha allah macha allah sant yàlla kon daal ngeen bàyyi ko xel. bu baax a baax baax a baax. waaw si tamit ngeen di roy jikko yu mel noonu. bañ a mm. bëggee xaalis ba mm. indil la. Mm. lu dul sa domaine wala loo xamul rek engagé ko ci force. ngeen ko xaalis bañ la rëcc. ragal yàlla ak def loo mën dafa baax bu baax a baax. Cheikh borom produit yu baax yi. ñu ñëwaat euh, beneen mbir boo xam ne que tamit. ci sa domaine la. muy yokk. ans. Mm-hmm. ak fes. Mm-hmm. dañu ñëwal ci ans ba pare. ans ah. mm-hmm. waaw comme jigéen ñi gërëm nan la. xaritu jigéen ngay bari. jigéen ñaa ngi témoin ngay ñëpp di kii pass Instagram bi. ñëwal ci ans bu baax a baax. pour kii soog a jàpp yem ci ñun. Ah. te tuuti xiibon. bëgg ans yi développé mel ni ah. mu war a mel. nga wan ko li ans mooy lii ba pare bu ko amee tamit li nga ko dëgg la waaw Cheikh produit maye fes ak ange. Euh, benn produit la te tamit produit naturel la amul effet secondaire base bi karité la mais nekkul karité kese kese kese kese uh-huh. am na yeneen engrais yoo xamante ni si àll bi la jóge uh-huh. te àllu Sénégal gi la ñoo koy liggéey sama xam-xam boo xam ne yàlla moo ma ko may comme ni ko waxee ku ne sa wàllu bopp am nga lu la yàlla may uh-huh. man xam-xam bi la ma yàlla may di composé ay garab ay plante xam nga différent plantes muy faj lii wala muy maye nangam wala muy yokk nangam sans effet secondaire macha allah te xëy na buñ doon caaxaan wala buñ doon tappale duñ agsi fii nii xam nga buñ doon caaxaan ak tappale duñ agsi fii ñu yàlla agsi la sant yàlla te xam nga sant yàlla daal produit bi naturel la base bi karité la dañ ko utiliser di commencé ci fes yi. Ah, euh, matin ans moom mooy lan jigéen ñi xam nañ ans. parce que ñu bari dañ a dafa moom mooy comme jigéen nga xamante ne dafa taxaw nii ma formam bi comme nii. comme poto cornel côté yi mu def nii maanaam. waaw ñii euh, jël mesure sa tailleur yi macha allah xam nañ loolu. xam nga. ange ah, yi xam nga ah, parce que ñoom dañ ko nettaale. ange ah, moom xam nga moo nekk loolu léegi nag ginnaaw gi moom mooy. comme jaay fonde. ginnaaw gi mooy waaw gambien yi naan ko wang. wang waa hips wala wang hips and butt mooy si anglais bi gambien yi xam nañ loolu wala wang. xam nga produit moo koy maye macha allah amul side effects amul effet secondaire naturel la macha allah dafay wook comme ni ko gàmmale dafay wook 100 pour xam nga amul caaxaan du ay naxaate is 100 pour cent nice daal maanaam amul amul side effects comme ni ko gambien di wax cof léeg-léeg ci anglais quoi ah, anglais amul problème pour sama client gambien yi nekk Amérique ak sama client yi nekk euh, Suède Euh, Angleterre macha allah ak nga xamante ne dégguñu dara nigériens yi dégguñu français dégguñu olof anglais si si ñoom xam nañ di nuyu ñëpp fàttewuma kenn client yi ñu ngi allah daal suñu client ñu fa pour wax la produit bi mais fekk secondaire hmm. boo ko utilisé da nga résultat bu baax boo ko utilisé parce que bu ñu la benn affaire da nga ko utilisé comme ni ñu la ko waxee mais hmm. parfois da nga jaay doomu aadama dara hmm. nga euh, jaay ko ko du ko utilisé rek du

baax ba xamante ne diw nga ko ba mu baax mm-hmm. te jafewut quoi. xam nga du ah, bu ko neexee des fois am na nit ñi laaj ma loolu ma ne leen bu la neexee wala seen copain yooyu. waaw mais en ah, tout cas nañ ko ko maase ba mu baax ba nga xamante ni waaw maase nga ko ba mu kii macha allah. xam nga après nga waaw nga def sa affaire mais na nga ko utiliser matin midi soir boo amul temps nga utiliser ko matin soir. am na sax ñu ko utiliser benn yoon si bis bi sax duñ ko respecté. ba pare di gis résultat mais docteur yi sax bu la jaay ko nga utiliser ko nangam ak nangam mm-hmm. boo ko respecté nga tane mm-hmm. lii tamit noonu la demee macha allah parce que waaw mi ngi noonu daal te boo ko utilisé dans la première semaine seex ma insisté dans la première semaine da commencé gis résultat bi mm-hmm. maanaam nga xam ne lii nga diwoo kat mi ngi ñëw ndànk-ndànk nga xam ne lii nga ay caaxaan léegi nag loo gën a continuer produit bi da gën a gis ay résultat loo gën a continuer Euh, du ma sa dellu du ma sa père les les résultats restent à vie macha allah bu neexee tamit boo demee ba nga utiliser ko ba am da nga am li nga bëgg mën ngaa jël produit bi kat nga denc ko sa am fii seetal kese nga bàyyi ko fa boo demee nekk yu nekk Europe yu ci bari dañ naan dama voyage woon wala nangam ak nga ak ko def ko sa frigo fii seetal kese boo ñëwaatee problème mais li bon mooy nga tàmmal ko sa loxo Uh-huh. xam mu tàmm ko après nga daat koy bàyyi defoo ko ci frigo te mën na dem ba yàq produit bi yooyu waaw mais amul effet secondaire amul danger uh-huh. xam nga affaire mi ngi mel exemple nga commencé lekk nga togg benn affaire guddi uh-huh. xam nga commencé al sa loxo nga lekk nga tekk noonu suba boo xëyee suba day forox exemple bi quoi di comprendre loolu moo tax waaw bu fekkee ne yow da ngaa lekk exemple nga togg lekk boo xamante dugaloo sa loxo boo ko tegee fii ba suba du forox exemple quoi pour ñu mën a xam lool ci produit te tey allah pour dafay da lay jox résultat yu amul fenn Ah, ah, uh-huh. day gën a rafet wala ni mu meloon lay melal. day day développé wu day. maanaam pour nga am taat yu ngand macha allah. wala hmm. fes yu uh, uh, yu génn macha allah foo romb bàyyi fa trace comme ni ma koy waxee rek produit yi <laughs> bi moom boo ko utilisé wax dëgg yàlla hmm. foo waaye foo romb wax dëgg yàlla daal di nga ko bàyyi kii dinañ la waxtaane macha allah en tout cas ko utilisé. boo hmm. amul célibataire bu ko utilisé. jëkkër taxaw na jëkkër taxaw waaw bu fekkee nag aawa nga boo ko utilisé moom ñaareel doo ko dégg. waaw macha allah waaw waaw sa jëkkër kontaan day gën a kontaan billaay am na koo xamante ni benn témoignage dama xamul ban dëkk la mais Europe la nekk mi sama page Instagram ak Facebook hmm. boo kii ñaata million un sama ne dix mille et quelques la am am na ma un kii lañ nga ko wax wax Cheikh barke Seydina Mouhamed do ci dana ma Cheikh est-ce que du doom yow barke alquranu karim laa la billaahi wallaahi et témoin boobu ma nga fa wallaahi mu ne comme dafa jënd produit moom boppam ba pare hmm. jabaram ne ma Cheikh est-ce que du doom ya parce que xale bi taat yaa ngi ko wër noonu la ma ko waxee <laughs> billaahi wallaahi wa taalaahi barke alquran <laughs> te waaye te dama ko dafa ma envoyé xaalisam mosuma gi dafa ma seetaan télé fu ma seetaane hmm. xam nga mu contacté ma ne ma hmm. produit tal laa bëgg yooyu ma ne ko nanga ma taxaw tardelu ma ko envoyé naa ko produit fi mu bëgg mu dem fa te jot na si ma ne ko dinañ ko utiliser nii rek ni ma utiliser ko yàggul dara mu may jox ay ay résultat billahi wallahi wa taalaahi du ay caaxaan dinaa la seex bayil la xam lan mu tax non xam naa non waa ji man nit ñi ah. du waa ji nii ma xëcc gars yi man loolu gëm man mm. gis nga xam nga moo tax loolu foofu may wax dëkk bi nekk nag loolu dafa metti nag ah. nit ñi ngir yàlla wàññi leen fen di wax dëgg bu la gëm tamit du yoon tam na ñoo xam ne que waat defuñu ko muy dara mën nañ mm. waat lu dul dëgg. Mhm. xam nga fii kuy def lu ay tappalek yooyu. Mhm. doo yàgg fenn. doo yàgg fenn doo dem fenn. doo dem ñu ngi sant yàlla lu baax la ñuy def. yaa ngi rabbi sant yàlla xam nga sant yàlla daal di nuyu waa Dubaay yëpp xam nga macha allah fàttewul ak naar yeeg naa naaru jigéen ñi góor yi. naar ak naar bi. waaw ñëpp <laughs> <laughs> sant yàlla Hmm? appartement ba pare nga ci bi waaw waaw mi ngi sa bopp Dubaay appartement bi. non c' est xam nga non bëgguma non bàyyi naa nañ bàyyi noonu xam nga. nañ bàyyi noonu balaa gars yi di commencé jóg yooyu ñoo nga. non yooyu non sa yooyu ay katam yooyu kii xam nga. Cheikh fu wóor la taxaw mooy loolu sant yàlla rek Cheikh. Cheikh ak naar bi ak hmm. naar hmm. kon euh, dégg li mu bu baax a baax bi bul bari kersa bu dee da am ans yu tuuti mhm. ah wala bégoo ci mhm. nga ñëw mu dimbali la bu mhm. baax a baax ci ans ba nga xam ne ko fu la neex ngay vidéo sa bopp di seetaan sa bopp di envoyé ñu la woo nga naan léegi nii nga mel kenn dootu la gis di la yërëm doo xiboon du kenn du la xoqatal booy booy boo ko def xat sax da ngay man a romb jàll ndax lan say ans da lay génne bu baax a baax léegi fes nag fes moom mooy ah. fan fes waaw fes mooy wang mooy ginnaaw mooy ginnaaw nga am jaay fonde macha allah loolu mooy fes Euh, même produit nag moo koy maye Cheikh. Mhm. fes yeeg ansi ak sein yi. Mhm. même produit moo koy maye. Mhm. bu fekkee tamit euh, da nga bëgg ay sein maam ay ween. pour nga comme yàlla bindee la ween yu yem. comme mu tol ne orange wala pomme. genre yooyu kii ba pare ok même produit bi la fes ba pare fes yi mooy ginnaaw macha allah mooy ginnaaw. ginnaaw gu baax nga am wang. macha allah même produit. boo ko sol yére wolof nag moom am mën a garaaw. loolu da garaawul ah, moom. gu jigéen gu mën a doon moo xam yëre olof ngay sol mm. moo xam ngay sol jiin moo xam ngay sol jip mm. macha allah daf lay defal sa forme ba mu naay sans effet secondaire. te hmm. naturel la. te yàgg nañ ko jaay doomu aadama ñuy kontaan fépp si àdduna bi moo xam hmm. dëkk bu mu mën a nekk nag moo xam xeet boo mën a nekk ñu ko jaay doomu aadama yi hmm. la fayu ma a jaay ñu kontaan ñu ñëw teem parce ah, tere mais Cheikh loolu maanaam firnde la firnde la man am naa ci lu bëri mais li tax lu bëri mënoo koy teg nit ah. ki bu waxee lii ba pare ah. waxaale turam ah. waxaale sama yaay nangam nangam bu diw de ba mu ko kii très bien doo hmm. dafa bari hmm. da gis ku ma xaalis hmm. da gis date ba ma ko envoyé ak date bi ma njëkkee contact ne ma seetaan nangam wala dama nangam wala nangam ak nangam xam mu bind am na date bu mu la bind lool si WhatsApp da koy génnee ne damaa bëgg po nangam léegi ne ba nekk lii nga ba ak ni nga ko ko envoyé yëpp nangam ak nangam yi après bu jotee ba étudier ba mu ñëw ba mu indi retour yi damay génne vocal yi ba mu ne ma siyaata produit nangam laa bëgg ñaata la dama génne yëpp ne ki ma jaay ne jaar fa mu tàmbalee ak fa mu yem ba mu ngi résultat yi xam ne envoyé na ma xaalisam kat nii la ak bi hmm. yooyu yëpp dama koy génne ci moo tax ma def yooyu bari ñi ma témoigne ñu bëri ma dugal sama Instagram mm. te macha allah sant yàlla Cheikh bu doon dëgg du ñu agsi si yenn yi quoi mm. te duñu xam nga sant yàlla rek macha allah sant yàlla sant yàlla produit yu baax kon ñëwagul naa ans ak fes mm-hmm. jigéen boo xam na que euh, manqué le nga ko wala mm-hmm. li nga ci am bëggu doyuloo mm-hmm. Cheikh ne na boo ñëwee dina la yokkal te lim la yokkal dafay nekk sa ngir tudd incha allah les résultats kon dégg ngeen ko. moom mm. kon ko xiboon ak kuy tuuti yooyu moom mën na ci kii. Mm. léegi nag mu ñëw ci wàllum ween. Mm-hmm. maanaam euh, jeune bi dàq teg dënn kan la. Mm-hmm. Asaar Asaar mooy teg dënn Baye Mass wala kan la ah docteur kan la. Ibrahima Fix say teg dënn. Mm-hmm. waaw je ñu teg dënn mooy euh, jigéen boo xam ne que weenam. Mm, bëgg na. mu gën a taxaw bëgg na mu am mu gën a yànji gën a rafet gën a kii. tuuti ah. tuutale ba pare. Euh, bëgg mu gën a rëy xeet yooyu daal. ba rafet. waaw Cheikh même ñooñu même ñooñu tamit buñ ko amee jigéen ñoo xam ne dañu am ween yoo xam ne dañoo xaw tuuti ñu xeeb ko wala ñu bëgg mu gën a développé produit bi yokk fes ak ans moo koy ah, yokk même produit bi yokk fes ak ans moo koy yokk moo koy yokk waaw même aussi tamit jigéen ñoo xamante ni dañoo am comme amuñ dara ci ay sein macha allah amuñu dara loolu moom produit du ko indi mais bu fekkee yàlla bindee na la mu ñëw mu tolloog euh, pomme wala genre yooyu uh-huh. boo ko utilisé dina gën a développé mais comme am ñoo xam ne yàlla comme daf leen bindee comme mu plat seen sein yi dafa plat yooyu wax dëgg yàlla pour bugguma lekk sa kenn man hmm. goowuma yooyu dama leen li nga xamante ni moo nekk dëgg fekkee nag toll na ni euh, pomme wala orange noonu boo ko utilisé ni ñu la ko waxee chaque jour da ngay commencé gis da ngay commencé gis maanaam résultat yi te aussi tamit ay sain wala yooyu waaw wàññi produit day yokk ay sain macha allah comme ni ko ah. expliqué rek mm. waaw pour mu leer mooy yokk fes mooy yokk ak sain même nit ki bu ci yokkee lu ëpp mënatoo ko wàññiwaat non pas mu ëpp parce koy diw nekkul xam dañ koy naan du lu ñuy naan xam am ñoo xam lu ñuy naan mën na leen def ba jéggi dayo ween yi ba mu ëpp laa non do nga koy diwee nga mel ngay lekk dara rek ah, boo lekkee ba suur mën ngaa arrêté parce que nit ki doo suur ba di continuer di di lekk di lekk di lekk <laughs> mais boo utee diw sa produit ba nga xam nii kat neex na ma nga bàyyi noonu hmm. même fes yeeg ange noonu la fa demee rek waaw borom produit ah. ah. nga xam ne que nag sama toogaay ñu ñëw nag mm-hmm. attaqué kër yi doon baatu kër gi. régler li ci biir kër gi. mooy lan. jàmmam ci kër gi. mooy yokk awra. cheikh nee na day yokk awra. ku ko mësul dégg cheikh borom produit yu baax mi ngi nii toog jëwuma ko. nee na day yokk awra. nee na nag du yokk ba mel ne fasan ak mbaam yooyu noonu. déedéet day yëf yëfu nit lay def. boo ñëwee mu yokkal la te amul effet secondaire effet secondaire mooy du la lor ci benn côté. ci sa wér gu yaram ak lépp mhm. te nee na nag diñ ci kontaan ah. ku ne mënul nekk moom nee na mënut a nekk mën na nekk ku ne mhm. am na jafe-jafe yu ci nekk moom nee nekku ci xewal da nga ci nekk mhm. waaw yokk awra waaw cheikh yokku bi macha allah ñu bari xamee nañ ko ci àdduna bi xam nañ xam nañ ne cheikh moo fiy joxe wala moo fiy jaay produit yokku awra ba xamante ni boo ko utilisé gis résultat ba loolu moo tax sax euh, appartement Dubaï tax <laughs> sant yàlla xam nga ah, sa naar ah. dama ko présenté nag naa la ko présenté incha allah ma dawal ren am kër tamit man bu ma appartement Dubaï na am kër Sénégal. Cheikh bu tax gars yi naa ne ma jox xaalis de. Euh, Sénégal si lañ euh, bokk Gambien yëpp macha allah xam nga boo jaay lu baax ñëpp koy euh, sant yàlla daal. Eh, mais moom ni ko am na ñoo tamit Cheikh da nga leen jaay lu baax ñu ëlbatiku may la cadeau. loolu tamit day am nga gis ñi nga jaay nit dara mu kontaan jox la loo xamante ni peut-être sax yow bokku woon sax jox la lu macha allah daal. yàlla sant yàlla ah, sant lépp yàlla lépp parce que nit ki koo jaay dara mu kontaan xam nga mën la jox cadeau Mhm. exemple moo xam man moo xam keneen. mais mhm. sant yàlla daal moo tax ma naan jaay lu baax rek moo am solo. ak lu baax. te doo tappale doo naxaate. Mhm. man nag yooyu naxaate tappale yooyu laa nekkut seex. te moo tax yàlla mi la ñu aw. duñ ko teggi a seex produit bi. waaw boo ko utilisé maanaam jour buñ la ko moo xam nga jot ko même jour bu mën a parce que am nañ ko envoyé duñ euh, ko tàmbalee noonu nga commencé nga diw ko ni ñu la ko waxee nga respecté ko mm-hmm. balaa bis booba jël comme da nga koy diw da nga diw si awra maase ko tamit mm-hmm. diw bi compliqué wul métti wu nekkul ne comme mel ni ay loo xam ne ponte konte patu lampe muy naqare yooyu. da nga ah, jël nga diw ko maase ko si awra bi. midi soir. Hmm. macha allah dina rëy dina gudd dina dëgër. Uh-huh. te doo am effet secondaire. ah yooyu rëy. maa ko seex loolu nekk naa si moo tax tey ñu ne fi ñu toll macha allah. sant yàlla liggéey bu baax def résultat xam ku nekk mag sax da nga ko koy <laughs> di nuyu sama client yëpp ñi ma mat papa ñi ma mat nijaay ñëpp. macha hmm. produit amul ku mu tam mën a. jigéen dina la indil borom këram pour nga yokkal ko wala non ñu si bari dañ naan dañ ma seetaan si télé wala fenn mm. ñu jël numéro nangam wala nga dégg sama jabar ma doon seetaan télé ñu mm. jox ma numéro bi loolu dama ko dégg lu bëree bëri mm. moo xam ku nekk Europe moo xam ku nekk Sénégal moo xam ku nekk si Gambie ak Mauritanie damay dégg yu mel noonu wala booy naa la nangam ak parce que ñu bari parfois da ngay seetaan émission parfois gisoo ko ma la wax sànq ne la kooku dafa jëkkëral li may ak yooyu mu jënd ko jabaram te moom moo seetaan émission bi après nag mu bëggal si jabaram yooyu mu jëndal ko si comprendre des fois jigéen mën na njëkk seetaan des fois góor gi seetaan émission bi hmm. des fois nekk nii di def ah. émission ak Cheikh borom produit yu baax yi nekk ah. en direct ah. mais Cheikh ci boppam nee mm-hmm. day yokk awra mm-hmm. yokk awra ba mu comme mbaam ak fas ak yu mel noonu. yëfu mm. nit daal ah. Mm. c'est dëgg la waaw maanaam produit boo buñ la jaayee produit nekkul da koy yokk mu toll ni awra fas wala mbaam yu jéggi mm. dayoo yooyu. defewul noonu. mais boo ko a nit nit ko xam ne am na awra bi nga xamante a rëy ba mu kontaan ci yow comme ñi nga xamante seen jabar maanaam du ñu yëg bànneexu say ñoo xamante problème seen jëkkër dañu am problème awra bu tuuti parce que yàlla mooy binde nit awra bu tuuti feebar la am na xam-xam bu koy kii hmm. ku mel ni cheikh produit may na ko xam-xam boobu dañuy sant yàlla ba tey xam nga ñi ngi koy def résultat am na ñoo xam ne ñu ne loolu mënut a nekk mais ñoom seen xam-xam toll foofu ñooñu na seen xam-xam fa mu toll fa la yàlla dimbalee ma commencé foofu di continuer macha allah produit naturel la bi carité la dañ koy diw si awra bi macha allah mu kontaan mm. macha allah wallahi la nga si euh, am na du carité kese de mm. du carité kese am mm. na carité euh, ak engrais euh, ñoo xamante si àll bi la jógee ma compose ak sama xam-xam boo xamante ne almu sajara xam-xam boo xam si garab lay dox des plantes macha allah maanaam mm. garab maanaam xam nga yu nekk si àll bi composé ko mm. xam nga mu indi ay ay jatak nangam nangam nga xam mm. xam la du ay caaxaan nekkutu jinne ak affaire yooyu nag ah, ah. man aw jinne lu set ah, wicc laa yor macha allah aw jinne aw rab tappale yow uh, comprendre seex waaw boo ko utilisé dans la première semaine ngay commencé euh, résultat bi maanaam bis ba produit moom ngay commencé boobu bi léegi ne loo gën a continuer produit da ngay gën a gis ay diwaan ñaari loolu mën na feeñ parce que ku nekk sa ak bokkul sa der hmm. sa yaram xam nga yaram yi dafa ñu gën a dëgërante des fois hmm. bokkul mais bu la leeree da tukki mën nga koo jël dugal ko si frigo nga denc ko waaw boo ah. ñëwee continuer ko parce que nit ki mën nga commencé dara euh, teg ko mën a dem ba forox yooyu noonu yàqu wala yu demee noonu mais comme que bu la fekkee ba la da nga koy utiliser pare doo ko àggali nga jël ko denc ko si frigo moo xam yi maye taat bi yokk awra lay def macha allah moo koy réyal di ko gudal di ko dëgëral ñi nga xamante yàlla moo leen bindee awra bu tuuti hmm. parce que du question xamadi hmm. dafa am ñoo xamante hmm. yàlla xam na ni mënuñoo sax am euh, jabar ndax loolu ndax am nañ kersa bi am ñoo xamante am nañ ko sax am nañ euh, soxna te seen awra tuuti mais mënuñoo satisfaire seen jabar seen jabar sax dañuy jëm di ko joxe si àll bi te ndeysaan xam xam nga mi ngi noonu daal nit ñi xam nañ defuñu xam nañ li a loolu xam nga yaa da ko bind ay tuyaaba bu dul xaabi sax tuyaaba la Cheikh mi ngi dimbali sëy yu bari seetaan Tektal TV nii solution bi ngay am mooy bul ñàkk yaakaar hmm. am na ñoo xam bu ndégee yokk awra dana jàpp ne lii mënu nekk ñu indi leen ku ko yokk mhm. ba ni bég loolu kon sant yàlla ñoom résultat boo def au lieu nga kontaan ñu ñoo lay gën a kontaan kii nga ko defal ñun ñoo koy gën a kontaan parce que a téye ba mu dëgër kenn yabuñ ci àdduna bi moo tax kun ci war na li def du foo du caaxaan rek dañ lay sant gërëm la ñaanal la te kenn du lu kalaameeg yow kon yàgg fi tawér amiin amiin nga gën a yokk résultat yi baax Cheikh mais mu des beneen mbir mooy ci mhm. biir yokk awra ñëpp xam na ne ni ma koy waxee rek Morgan mhm. Morgan ak Benteke Mm. ñoom ñëpp ay ay ponkal lan mais nag mm. wax dëgg yàlla Sadio Mané leen gën a tuuti mais moo leen ëpp ci biir terrain waaw léegi nag mu des boo ponkalee ba pare nag mm-hmm. yàgg ci comme nee nga di nga dëgëral di dina rëy di nga ak rëyal. maam yokk aara bi day rëyal day guddal day dëgëral. rëyal guddal dëgëral. boobu la res léegi nag mu ñëw ci bi nga xam ne que nag comme day mel ne comme Sadio Mané ci terrain. Mhm. ni ko ñeneen ñi ëppee mu ëpp leen fa njëriñ léegi nag mu des njëriñ biir. Mhm. sëy bi mu yàgg. dëgg la Cheikh waaw bu fekkee fi ngay waxee maanaam ñi. ñi nga xamul fi seex di waxee maanaam kattan gi. ñi nga xamante ni maanaam buy see seen soxna. dañuy gaaw a àgg fañ a àgg fañ jëm xam nga. Mhm. ñu si bari tamit loolu tamit duñ si satisfaire seen jabar. yàgg lool. waaw mel allah boo ko utilisé te poudre loolu noonu poudre naturel la maanaam kattan gi la tudd. ba léegi la doo am ñu koy jaawale comme nit ki ñëw soxla yokk rek yokk nga yokkal ko pare mu naan waa mu yaakaar ne. très bien cher jërëjëf ci loolu maa nit ki man dama bëgg soo ma woowee mm-hmm. nga wax ma lu mel ni midi nga ne ma seex luy ah. yokk aw laa bëgg wala nga ne ma liy tax doo gaaw a daanu laa ah. bëgg pour ma xam mais am ñoom dañ lay woo la seex produit góor am na am na waaw da ngay woote waaw da nga naan bu fekkee góor nga ne seex at nga woote seex produit yokk awra laa bëgg. Mhm. wala Cheikh euh, nangam laa bëgg nga leer ma xam man dama ah. bëgg lu leer Cheikh man ay tappaleeg yooyu naxaatew ma bokk ma ci naxaatew ma. Mhm. da naa naan ma Cheikh lu yokk awra laa bëgg wala nga ne ma kattan gi tax doo gaaw a àgg fa nga jëm laa bëgg. Mhm. waaw mais ay Cheikh produit yi góor laa bëgg. produit góor yi bari na. mais nga leeral nga xamante ni du ma juum doo juum. parce que man dama ma jaay nga gis résultat xam nga sant yàlla. man loolu laa gëm. loolu nga daal macha allah kon macha allah Cheikh borom produit yu baax kon nee moo moytul woo ko rek ne ko produit góor yi laa bëgg mhm. te fekk dafa am boo xam ne que mhm. day jëm ci mhm. bañ a gaaw a daanu beneen bi nag bu yokk bi moom dina la assuréel guddal rëyal dëgëral loolu moom moo ko garanti bu dee ngaa jël ñaari la da lay yoral wàllum góor yëpp fu la sa soxna yabe rek boobaa moom yéen ñaar koy lijjanti te moom bëggul ku koy kalaame waaw euh, dinaa ñëwaat ci kii bi entre parenthèse rek ah. am ñoo xamante nii tamit ñoom day dépendre si ñoom boo bëggee produit yokk awra am ñoo xam en même temps ah. am na ñoo xamante ne seen awra moom kontaan nañ ci loolu mbaa hmm. tamit yàlla dañuy jënd ñaar yëpp am ñoo xam tamit nag benn bi rek lañ intéressé moo xam kattan kese moo xam yokk awra kese am ñoo xam jëndandoo ñaar yëpp des fois da ci am hmm. lu la neex daal yaa xool comme mu nga seet nga mais góor moom la neex euh, bopp bu fekkee li la neex yow hmm. nga xam seetaan nga ko aax na la hmm. yokk awra ak les bokkut pour mu kii aussi tamit benee kattan gi Cheikh eh. day faj ñi nga xam mooy gaaw a daan day faj loo xam euh, ñi nga xamante ni seen awra balaa mu jóg day yàgg ah. da koy faj surtout eh. ñu nekk ñi am ñi am ñi am ñi am ñi am at yu kii macha allah daal at yu bari moo xam soixante quinze ans moo xam soixante cinq ans moo xam vingt ans moo xam loo mën am si at macha allah daf koy faj daf koy faj euh, maanaam awra boo xam ne en général awra bu yàq jug mag ñi lay ëpp lu ñuy dal uh-huh. boobu da koy faj produit boobu mooy uh-huh. bi faj gaaw a daanu bi da koy faj uh-huh. day yokk ndoxu góor aussi produit boobu da koy yokk aussi wallax njaani pour pour ñu kii ko ah, day tax tamit nga yàgg si kaw lal bi day tax nga yàgg waaw ñoo xamante duñu yàgg ak at yoo mënti am seex dina tax tamit comme nit ki bu métan te war a reprendre mu kii maa ngi ñëw si loolu ñi nga xamante ne buñ seeyee ba àgg fi ñu jëm Euh, pour ñu sëyaat ak ñoom day jafe mm-hmm. demaat deuxième fois bi ña second time si comme ni ko sama a américain gambien di waxee mm-hmm. day jafe produit yooyu da koy faj da koy faj waaw am ñoo xamante ne bu ñu sëyee ba pare rek dañuy sonn instant bi xool subaati rek wala ëllëg beneen yoon mm-hmm. produit dafay fi dindi yóbbu ba day tax nga doo gaaw a daanu aussi tamit te naturel la amul effet secondaire macha allah lépp ci àll bi la jógee ñuy composé ko ak xam-xam bu sell te wóor ñu naan a sajara xam-xam buy dox si wàllu plante yàlla daal may na ma xam-xam bu ñuy wax xelmu sajara xam-xam boo xamante ni daal si ay plant lay dox macha allah yokk aw raw résumé ma ko tout 30 ci anglais da nga koy def Yeah, hello my people. It's your boy Sheikh, aka the man with the group, uh, with the group production. Uh, shout out to all my people who watching the video right now. Shout out to all my customers from Gambia, from United States of America, from everywhere. You know, from Nigeria. You know what I'm saying? It's your boy Sheikh, aka the man with the good products. Yeah, the products for uh, make the uh, uh, penis very bigger, you know what I'm saying, as you uh, need the, the thing, you know. Uh, you can massage the products on your on your penis, so it's gonna be big, you know what I'm saying. It's gonna be strong too, you know what I'm saying. And it's not, it, don't, it doesn't have any side effects, you know. It's work 100% without any side effects, you know what I'm saying. Yeah, it's possible, my friend, you know. Yes. Yeah, everything is possible, you know. you know, it's, it's very possible, you know what I'm saying? It's very possible, you No side effects, uh, no 419. Yeah, man, it's man with the good products. Yes, uh, borom produit baax yi wax naa Cameroun yeeg anglais yeeg mm. waa Angola ñëpp wax naa ak ñoom kon mm. bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci mm. salle bi mu noppi bi lii ñu ñor ko de bindal maire bi tamit numéro bi ñor na ko de indi nga bi bind nga bindal 77 taxaw xaar ma bind ko lu leer de

numéro Cheikh borom produit yu baax yi. Mhm. am na WhatsApp. Mhm. nga jël bii ci des tamit. 78. 116. 15. 48. 78. 116. 15. 48 chaque borom produit yu baax yi mhm. numéro yi am na whatsapp boo nekk bitim réew woote appel normal bu jafee nga woote ci whatsapp bi bu munul nekk nga audio boo audio toog tontuwul dolli waatal audio bi da audio bi bu mu gudd boo ko bëggee tegal sa àddina mu bëgg ko déglu day avance début bi déglu fin bi yéex a comprendre ndax ñi muy dégloo bari nga am ay cinq mille nangam message kon dafa jafe mhm. te ndax lan faaleetul seen xaalis neen da ci jaamu yàlla rek parce que fi nekk nii lu nit di wut ci liggéey bi mhm. mi ngi koy am mhm. waaw xuma naar bi la xuma naar yi xuma daal parce que fi nekk nii kuy taxaw ñuy wax appartement yu Dubaay ak yooyu mas na noo yóbbu foo xam ne que saa yi américain yi la dàq kon kii il ngeen bàyyi xel ay mbiram bu baax a baax a baax ngeen woo ko. Mm-hmm. bu dee kii na aslem fi nga nekk aslem bu dee yaa ngi Sénégal fan la. waaw Cheikh man maa ngi dëkk HLM 1. HLM 1 HLM 1 Dakar ku taayee woote a ñëwal aussi tamit nit ñi maanaam nañuy woote ba jot. ba jot ñu wax la produit bi nangam lay jar. Ah, nangam ak nangam nga ñëw bu a may la ko dugal oto. def sa numéro téléphone si produit bi. Mm-hmm. comprendre nga fekk avant sa xaar ba ba sa yow mm-hmm. bëgg produit bu mën a nekk moo xam nga moo xam jigéen waaw dina dem ci dëkk bi nga bëgg mu dem fa hmm. te bis bi nga envoyé sa xaalis incha bis booba nga si jot si kàttanu yàlla baa xam incha allah ak moo xam Gambie moo xam Mauritanie hmm. comprendre nga waaw nit ki nag su ma envoyé wut xaalisam nag yàlla mënu ma ko envoyé produit te a ñëw tamit ñun moom nekk HLM 1 Dakar mais balaa ngaa yow na nga jënd crédit woote ba jot bañ ne la lii ngay demee nangam ak nangam lay demee waaw ñu wax la li jar bu la arrangé nga ñëw jënd si ko hmm. Ah, waaw mi ngi fi ma nekk si mi ngi nekk Dakar oto yi nekk waaw ñu teg si oto yi moo xam allo Dakar yi moo xam oto yi jëm Touba wala ku nekk Ndar moo xam Kaolack moo xam Mauritanie moo xam bu dee <laughs> Europe ñu dóor sa wala GP hmm. mu ñëw bu fekkee nag amuloo GP DHL macha allah DSL nag moom instant man du ma DSL pour muy dem euh, Italie wala euh, Espagne parce que fan nii affaire corona moo tax man hmm. képp ku ma envoyé sa loolu damay bëgg nga teel see jot dama bëgg lekk sa xaalis ñu ba dañ may wasi loolu man maa ngi Espagne mais DHL laa bëgg mu envoyé ma maanaam sëñ mm. ne mi mm. euh, ko ñoom seen loi mu dem si dëkk ba nga nekk si Espagne mm. mën na nekk mais daal li gën a wóor nga sa bopp GP incha ñun si lu leer la ñu dox seex si lu leer envoyé xaaju sa produit macha allah si anam yu leer bu lay expliqué bu doyee nga def loolu waaw bu fekkee nag ay Amérique DHL bi moom taf-taf la du sax taxaw ay France ak yooyu taf-taf la moom macha allah waaw bu la neexee tamit bu fekkee koo ko yóbbat wala GP tamit si yow lay dépendre rek mais en tout daal sa produit ba fi nga bëgg mu dem fa incha allah dana fa dem moo xam Europe moo xam Afrique moo xam Dubaï moo xam fa jërëjëf euh, mbokk yi seetaan Tektal TV dégg ngeen li mu wax Cheikh borom produit yu baax yi. Mm-hmm. kon kenn du joteeg moom ci ay bagages ndax. Mm-hmm. lu ci war rek xam ne sax dëkk yi jafe-jafe yi ni am. Mm-hmm. mu teel a comprendre loolu loolu mooy li mu liggéey ñor na bu baax a baax. Cheikh borom produit yu baax am na ñoo xam ne nag karaw. karaw mooy seen problème. dëgg la waaw te yow da nga ne da nga yor diw bopp bu baax. boo xam ne que gën koo baax. est-ce que yomb na. dëgg la Cheikh waaw ñëwoon sa diw bopp li ci nekk la Cheikh diw bopp produit la moom tamit produit naturel la. base bi karité la. ñu composé ko ak plante yoo xamante ni macha allah si àll bi la jógee. ci àll bi la xam nga naturel la daal. Hmm. comprendre nga dañ koy euh, defar jox ko doomu aadama mu utiliser ko di gis résultat. Hmm. moo xam góor moo xam jigéen. te macha day noyal karaw bi. da koy guddal maanaam loo gën a diw rek maanaam da ngay gën a gis uh, sa karaw di di màgg maanaam daal di la may karaw moo xam góor moo xam jigéen ba pare day dindi leel day dindi leel leelu góor leelu jigéen ah! bi nag laa wax bu ko judduwaale waaw bu fekkee ne comme jigéen dindi leel yooyu rebord yi foo fu mën a daf koy dindi waaw bu fekkee juddu waale ko daf koy dindi a doon góor wala uh, jigéen macha allah sant uh, yàlla ñoom ñëpp assuré seen leel bu ko fekkee ko waaw waaw bu ñu ko judduwaale bu ñu ko judduwaalewul boo ko diwee gis résultat yi. amul sax nel fekkee judduwaalewu ko waaw mën nga ko assuré. Abdoulaye Wade am rek. Euh. bu ñu ko judduwaalewul rek macha allah da koy dindi. di la may karo ba mu sëq. Euh. macha allah moo xam góor moo xam di ko nooyal. sant témoignage témoignage mi ngi sama page Facebook produit média yëpp témoignage. mi ngi sama page Facebook ak Instagram bi. Instagram bi Cheikh produit l'officiel moo fa nekk. ak euh, Cheikh produit. ñaar yooyu sama compte la te maa allah témoignage ma jaay ñu kontaan produit façon différents produits yëpp nga fa ñi ma jaay ñu kontaan moo xam Sénégal moo xam bitim réew macha allah ña nga fa ak différents produits nag mhm. macha allah compte yooyu la am am na tamit ñu ne ñuy jéem a roy wala di waaw yooyu noonu xam nga non roy sax baax na moom roy ku baax mais toppandoo la dee leen roy lu baax waaw nit ki seex gis dara muy def dara rek mu si am euh, tuyaaba ak mu si am xam nga yàlla ubbil ko buntu xéewal nga ne ah kii dama koy réussir te yow li nga def ni leer na la tegu ko ci xam-xam hmm. pour am koppar ba def sa poste moo tax xëy na ñu ngi ñaanal ñoom xam nga yàlla may leen loo xamante ne sax mayu ma ko billaahi ma leen ñaanal loolu mais nañ ko teg ci xam-xam bu ñu gis xaalis rek noonu nit ki lim la nit bu la joxee xaalis na nga ko fexe li nga jox na ko na ko satisfaire moom xam nga nañuy xel si loolu tamit muy man muy keneen ah waaw sant yàlla daal tëgg semmiñ na sëriñ soo tamit loolu seen problème tëgg semmiñ lañ koy def neex benn yoon naqari mhm. la encaissé tey lekk la tey mhm. mu jeex tey ëllëg bu moo tax ñooñu ñoo gaaw gën a wàcc division dëgg la wàcc bu mu xasee wàcc nag mhm. Tektal TV mënu ci dara France 24 mënu ci dara ci man def loo man la c'est borom produit yu baax. Hmm. yow cat nag cat cat jekku nga ko cat. macha allah parce que ay a <laughs> dugal si bagage yooyu mais xëy na bëgguñ ko woon a def sax yu si bari wallahi lazim hmm. mais comme que client yi bari dañuy woo si xeer yooyu te il faut ñu leen tamit des hmm. ñun moom ñu ngi sant yàlla bu doon tamit ko tamit xaalis yooyu tamit ñun am ak ñàkk la ñamale rek ñu ngi sant yàlla mais xanaa tamit ñuy bari lool sonal na leen si aduna moo tax ñu moo la gën a ñor carrément xam nga mais comme ko bëgg dëgg la mën naa ko maa ko bëgg ko def wallaay la nga si maa ko bëgg woon def fenn

na nga macha allah na nga utiliser ak yi muy àndal daal macha allah ah, mais du yooyu yëpp noa du question yi ma wax nii yëpp si la ànd mais comme que yi jël ah. euh, liggéey tamit am naa si loo tamit day dindi cat macha allah sunguf la am na boo xamante sunguf la uh-huh. am na si différentes façons yoo ko bu baax a baax Cheikh uh-huh. ma ak yi bagage bari macha allah ku cat sonal moo xam catu lami moo xam allah wala ñi nga allah daal ceex jërëjëf euh, Cheikh borom produit yu baax yi. nan ngay mm. ñi nga xam ne que parfois. Mm. Euh, jëmmu cat. Mm. bu ñu ñëw ci yow. dan koy xeeb. waaw ah. jàpp ne waruñu cee sax fay lu bari. jàpp ne cat du dara daal loolu tamit nooy dundee ñoom am doo neexal client yow. non c' est une question neexal sax amuñu problème ñun. <laughs> man ni ma jàppe sama bopp laa jàmmee def même dof sax dama jàpp dof yi ma gën. comprendre nga macha allah. Euh, mais ku ma lu mu demee daal nga am cat. nit ki tamit. cat dinañ ko dinañ tutul cat fekk cat li muy def dafa bari macha allah. ngeen da nekk da ngay génn sax nga sànca sax léegi macha allah wala nga génn sax oto bu rafet tey. nga hmm. génn macha allah mbëkk dara. mbëkk dara cat da koy def des fois nag ndogal am na nag des fois hmm. ndogal yàlla lu am lu wér te cat tamit lu am te wér. waaw parfois dañuy tamit xanaa dañoo amul oto. <laughs> léeg-léeg doodaan yi tam nañ ci wax ngir yàlla. Hmm. doodaan yu métti mel ni ku bëgg ñëpp yàqule. xam nañ yéen moo ne tuuti ñi defar doodaan yi. dëgg la mais ah? des moom da koy ah. cat des fois nag yi ñuy defar doodaan yu baax de mais des comme ñu dëkk sa koñ ñoom ñooy defar seen doodaan yi bopp xëy pour xale ah. yi daw ndànk yooyu mais doodaan day ëpp nga xamante du normal ni nga xamante ko waroon defar duñ ko defaree noonu hmm. loolu moo tax li leen des fois nag ñu sóoraale yi nga xamante ñu dëkk si koñ yoo xamante ni tali ah. dafay xale dafa fee ñoom dañuy jéem defar seen bopp doodaan te doodaan des du baax mais ñi ñaan gars yi tamit ñu leen di bàyyi xel pour defar foofu ay tamit nga xool dawalkat yi nga xool nga ne leen ñu laaj leen seen xalaat moo gën ngay defaral sa defar dóoraan yoo xam ne ko moom saa sax mhm. borom produit baax mhm. léegi ku bëgg bay rab saf sàpp nga xam buy ñëw dañ mi ngi ñëw mhm. xam nga ñi ngi ñëwee bay eh, kii Dubaay foo ñëwee addina bi yëg ni ñëw nga ndeysaan dëgg la Tektal am na lu def mais am na loo àndal du nen. <laughs> coow yi ba ak naar yu milliardaire nu ba naar yi xam nga multimilliardaire. ñooñu noonu du nen bayra boobu nag la bëgg ku ko bëgg nu muy def. Ah. boo xam ne que saa yi naar yi dina la yéene lu ne. Mhm. Ah. Ah, dëgg la. Mhm. waaw Cheikh sant yàlla rek. Mhm. xëy na yooyu yëpp bëgguñ ko woon liggéey di ko liggéey. di ko jox ay doomu aadama ñu ñu siy fay ak yooyu. xëy na produit laa gënoon nekk. di ko defee mais comme que nit ñi dama dama ginnaaw moom il faut ñi lay soxla. waaw dëgg la nit ñi moom soxla nañ lépp te tamit. sant yàlla daal war nañoo mën a jàppale doomu aadama yoo xam dañuy soxla yu mel noonu mm-hmm. bëgguñ ci woon a def nag mais ah. dañu bari ñooñu poussé ci côté boobu mm-hmm. waaw genre yooyu maanaam da nga defar nit ki ñu bëgg bayre moo xam bayre tubaab am naa boo xamante ne bayre tubaab alxuraan la ko def man yoruma ay jinne pour mu leer yoruma ay jinne doxuma si ay mooso yu xonq yu kii yoruma ay pettaaw yoruma yu mel noonu dëgg la am nañu ko am am nañ xam-xam ñenn ñi mm. waaw macha allah mais man man bi ma am laax man loolu laay wax waaw alxuraan liggéey macha allah rabbi te du ay caaxaan xam nga ba pare buñ la ko liggéey bu fekkee bayre tubaab bi la mm-hmm. am na da tubaab spécial la dañ koy takk dañ koy takk ko mais day si biir dañ ci def euh, kawaru tubaab moo xam kawaru ko góor moo xam ko mais nee na kawaru tubaab doo si def nag kawaru nit ku ñuul kawaru tubaab loolu moo xam ku ñuul moo xam euh, pardon moo xam euh, ku góor moo xam ku kii ku jigéen moo xam mu nekk maire moo xam mu nekk xale macha allah dañ lay bëgg force parce que alxuraan bi ma alxuraan sa lu lu lu nee nga si biir wallaahi laazim xoolal naari fii macha allah xoolal fii xoola xoolal tey ñu ne euh, seen buur bi mag bi macha allah fi mu tëdd ay ay or ak jamaa mu eh, fa wër te dañoo fay ay doomu aadama bu ne dañ ne sa waay maa ngi nuyu jëkkëri mbàcce mi la ko expliqué ñu ngi nuyu jëkkëri mbàcce bi oh, ku baax a ngi noonu ku baax Cheikh macha allah waaju baax maa lay nuyu maam Baye xam nga macha allah ñu lay nuyu xam nga di nuyu Cheikh sa suñuy waajoo ci moom non du question Cheikh ñun dara yéemuñu mais dañuy gën dañuy gën a jàngat doomu aadama xam ku baax la Cheikh ku baax la hmm. ñun dara yéemuñu mais nit ku baax dañ ko sax xam nañ ne kii baax parce que nit tamit da ngay dégg ay rumeur hmm. ci nit ki mais nit ki boo tawuta moom doo ko xam Sénégal nañu suñu mentalité yooyu nañ ko hmm. ah, ko nuyu bu baax Mame Baye ak jabaram Mbathio Ndiaye ñu ngi lay nuyu macha allah di nuyu waa Sénégal yëpp Sénégal fàttewuñ kenn xam nga Cheikh alxuraan pour wax la li mu def gis nga ngeen ne foofu noonu xabru boobu noonu euh, mooy buuru naar boobu xabru boobu ay or dañ koy wërale ak ay jamaa macha allah te dañoo jël ay doomu aadama di leen fay weer bu dee salaire ba dee buñ leen boo soloon ay milliards ñu leen fay milliards ba la ko soloon juste pour jàng kaamil kese foofu kon xam nga njëriñ alxuraan li si nekk si biir dañoo xam valeur alxuraan imaginel nga ne yow boo bëggee ñi teg la nga jàng alxuraan kaamil équipe la nag de ñëw wër xabru bi jàng kaamil kese macha allah ku pare bëri te boo leen bëgg a jox leen appartement ah. lu jox leen lekk jox leen naan jox leen ay oto yu macha allah yu bakkane pour nga jàng alxuraan kese waaw pour nga jàng ko maam si barab bi pour nga ay ñu ko maam xabru ba maam euh, réew mi ñu nekk Dubaay mm-hmm. buur bi fi njëkkoon nekk macha bi mu génne àdduna dañ ko fa kiyal yooyu macha allah dañoo jël ay doomu aadama ñi leen di jàngal foofu alxuraan mm. chaque jour chaque temps ñoo dañ leen jël di leen fay nguur gi moo leen fay pour mm. xam-xam yu bare bare bare pour fal nit ak mm-hmm. moo xam lu mën a nekk ah. pour concours booy def ak macha allah fol yëpp ay nga ci non fol du ma man du ma def lu bon cheikh ah, du ma def lu bon rus naa ko ku ñuy fatt man xaw ma xaw ma ko bokk ah, man lu baax rek lu baax rek. kon kon Sénégal bu doon xëccoo fédération euh, kii FIFA mën nga koo jàppale. Sénégal. Sénégal bu bëggoon xëccoo ji FIFA. waaw ko ci ci pour leeral man bu dee comme nit buy xëccoo dara. Ah. moo xam ne bu dee équipe man xaw ma oh équipe nationale man xaw ma ci dara. non comme équipe ah, moo xam équipe mu exemple benn nit xam nga benn nit mën na def yow mën nga exemple mën ngay yow benn affaire wala ah, yooyu. moo xam ay tubaab ngay concours moo xam football moo xam examen moo xam leneen moo xam leneen. Hmm. mais ay nit nga koy nga koy concoural ay nit la comprendre nga léegi ne boo bëggee am wala nga bëgg nga ne am na loo xamante ne alxuraan la da nga koy nga teg ko fa xamante ne ngelaw koy ëpp rek muy naaw def ni waaw yenn nga xam da nga ko teg ci suuf nekk di naaw wala lancé mi looy concours yàlla daf lay nga jël ak lu mën na ne moo xam concours des moo xam concours bu mu mën a nag si àdduna uh-huh. macha allah bu ay équipe nag pour gagner uh-huh. doxuma ci yooyu aw ma xam-xam boobu waaw pour muy sawlal ba ñëpp xale góor jigéen mag ndaw. macha allah rab nag loo def ak moom nan nan jógaale taxaw fu ne. non Cheikh <laughs> naan naa la suñu bagage yi Cheikh jëlal affaire yi naan. ñuy teel di naan. Euh, borom produit yu kon ñu ci réew mi nga xam ne que. Mm. sa réew la sun réew la. réew mi nga miine ko ba mu dëgër. Mm-hmm. borom naar yi ak duwaay ngay naan sa yu sedd may naan sama yu sedd. ñuy mm-hmm. naan yu neex. Mm-hmm. dee dëkk bi Cheikh kon daal fi nekk nii léegi di nga lijjanti cat di nga lijjanti muslaay kaaraange. bayra mhm. euh, léegi ku bëgg ay kayit nag nekk bitim réew. ak seet. Cheikh xëy na seet am na lu ñu ci xam bu baax. Mhm. nit ki mën na ma jox turam ak santam. waaw ma adat ko lim ma jox ma ne la lii moo nekk si yow lii ak lii mais comme aw ma temps bi ay seetaan nit ak yooyu. Mhm. xëy na temps bi yeneen ñi moo ñu gën a posolo macha allah ay seeti am na ñu nañ ko bàyyeeg ñeneen ñi ñu liggéey ko. mën naa ko nag macha allah mën naa ko wax la li nekk si yow. nit ku am wërsëg ngaak wala amula wërsëg yëpp xam nañ ko. nit ku am rab ak ku lépp te bu ma la sax gis. nga ne man nii laa tudd nangam ak nangam. wallaahi te une minute moo wax lu nekk si yow nangam ak nangam. te sax musuma ko wax nag musuma ko xam-xam boobu. mais a xam nga mooy loolu macha allah. seen ngëneel allah ñu ngi seetaan. très bien. njàqareem jaaxleem coonoom na am solution. Mm-hmm. te man ku ciy jàppale rek surtout nga naan man nga lii waaw am na seetkat yoo xam ne ñu ngi nit ñi ah wallaahi kii rek expert wallaahi non yooyu xaw ma ci beneen naar bi teg gars yi coono boobu ci dara expert xaw ma am na sama benn xarit Touba nekk koy nuyu kee moo ma def ma def sama affiche yi waaw waaw sama affiche mooy sama produit messi si taf yi maa ngi koy nuyu papis dëkk ma Touba marché Ocass dafa doon jël ay tur ndeysaan ay jigéen xam nga macha allah ma ne ko kii nangam ak nangam ne dafa am rab wala amatu wala wësal wala nangam ak nangam uh-huh. te man xaw ma ñooñu de mais turam la ma jox ma waxoo si mu gëm ma keroog ma demee Touba dafa yeneen affiche mu ne ma Cheikh yéen li ma seetaan dëgg la mais da nga seetaan ma ne ko yooyu xamante dara moom ak ni nga garaaw si affaire bii nii seet bii barki si ak li may ah, ah. na na nag ko man nee nañ man ma ay exhibit ay numéro bi ma dafa yem ci li mën daal wallaahi mais rab nag rab ku ko am moom mën nga ko sangat moo de non mën naa ko xam naa ko mais xëy na dama amagul comme yenn yi ah, man bëgguma xaar pour kii sama bopp hmm. xam nga ah, am naa xam-xam bu koy dindi ah. xam naa lu koy dindi macha allah hmm. mais kiiwu ma si wax dëgg yàlla waaw xam naa lu koy dindi bu baax a baax nag wax dëgg yàlla macha allah mais xam nga rek waaw ak nga xamante ne tamit dañoo jubóowut ñoo seen borom kër wala seen borom kër jubóowut seen jabar am nañ nopp yu yu leen tax a juboole macha allah. macha allah xam nga am nañ nopp yu leen juboole. ñu ànd ñu bëggante bu baax a baax a baax a baax. Mhm. waaw pour nopp bi daa see alxuraan tamit sa turu sa turu ki nga bëggante la ñuy bind rek. jox loxo nga takk ko. Ah, macha allah kon même ku amul tubaab nga ci dara. bu baax Cheikh wallaahi. Uh-huh. nga nekk naam tu naam tur sant rek. Mm-hmm. ñu joxal la ko. Mm-hmm. ñu defal la ko jox la ko nga utiliser ko wallaahi. Uh-huh. macha allah daf lay bëgg. kon daal nee na ku am tubaab ku am. tubaab moo xam ne ku ñuul kon daal seex na ku bu am tubaab bu bañ mu rëcc boo ñëwee ak nopp ah. lu mel noonu muy góor ak jigéen ah. muy góor ak jigéen yëpp bu mu ci mën mm. di doon ah. boo ñëwee mm. dina ko lijjanti bu baax a baax a baax a baax kon daal boobu ci ñaata fan seex loolu comme looy takk lañ la koy bindal alxuraan la mm-hmm. al la bind bi métti na. Hmm. Euh, li jékki mi àndal métti allah. xam nga mais buñ la ko defaralee jox la ko nga takkoo macha allah ki nga kooku noonu maanaam daf lay bàyyi xel bu baax daf lay bëgg force. ma ko daaw ma ko bëgg di defar. waaw wallaahi na nga si nit ñi sonal la ci ma sonal la. ak Sidna Mohamed xam nga sant yàlla daal parce que ñu bëri dañu am jabar. Hmm. te seen jabar parfois da ngay fer si xaar bu hmm. boo ku mel ni man wala ku ko man mu defaral la ko daf lay bëgg force loo wax du si teg baat moo xam góor moo xam jigéen macha allah waxtu beeru dam léegi looy tàggoo bu dul tàggatoo mhm. nga ba borom Dubaay mhm. nga miine Dubaay tey ko ak naar bi ak ko sant la bu baax a baax dëgg la waaw seex maa ngi nuyu waa Dubaay ñëpp mhm. ah, di nuyu ñu ñu fi fekk sama xaritu naar yi sama cliente naar yi góor yeeg jigéen yi waaw pakistanais yi xam nga kañ nga joxe numéro Dubaay am yaa ngi ci numéro Dubaay dinaa ko joxe léegi incha allah Cheikh wala après ma jot parce que dama këruwul nag te des fois damay bëgg nit ñi waaw mooy sant yàlla waaw nañ jël numéro Sénégal yooyu incha allah xam nga macha allah daal sant yàlla am na numéro Angleterre mais dañ jël numéro yooyu rek yi si kii incha allah wala boo demee sama Instagram tamit mën nañ fa jokkoo Cheikh produit l'officiel wala Cheikh produit ñaari Instagram yi ma am macha allah mhm. témoignage yaa ngi fa ñi may jaay ñu kontaan di nuyu ñëpp Cheikh di nuyu sama papa sama yaay di nuyu Amath Konté di nuyu Alaaji Guèye di mhm. nuyu Matar Ba di nuyu euh, euh, Ndey Jonn di nuyu Jibi Thiam Xaadim Gay di nuyu bàyyi Seen ñëpp fàttewuma kenn di nuyu Cheikh Mbacke sama mag. di nuyu Moodu di nuyu ñëpp macha allah. Euh, di nuyu Bas Diop sama assistant bo macha allah di nuyu ñëpp daal di nuyu Mahmoud si euh, sama cousin la macha allah di nuyu samay nijaay sama maam di nuyu samay mbokk yëpp di nuyu waa Masar Diop fàttewuma leen di nuyu waa Masar Diop fàttewuma kenn maa ngi nuyu waa Masar yëpp di nuyu waa Sénégal samay client samay client Cheikh. ñëpp ñi leen defar ay teranga di leen. di leen teraanga nag mënut a weesu nga defal nit dara lu baax. mu mm-hmm. gis ko moo xam produit yi moo xam li ma ñaanal ñu koy gis macha maa sama waaj maa lay nuyu parce que dañu am dañoo am fu ñu jaar te borom baax di nuyu mm-hmm. mm-hmm. ñu boole maag moom parce que su ma ko defatoon dara mu gis ko peut-être du ma boole moom moom tam maa ngi koy nuyu allah sant Amadou maa nuyu bu baax maa ngi nuyu bu baax a baax des fois nga message ma yàq a tontu macha allah ki message yee bari maa ngi si jégal di nuyu ñimit ñëpp nit ki tamit ñu leen fàttali Cheikh mm-hmm. ku ñu woo mm-hmm. ku ñu ma woo ma yéex kii del insisté di woote waat yéen ñu nekk Sénégal ngeen jënd crédit woote bu normal boo ñu yeexee jot nañuy insister rek macha allah parce que appelé bari message yi bari. Mm. sant yàlla di nuyu ñëpp daal samay tantaak samay magat fàttewuñ ko yéen di nuy waa Touba ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu Ablaye Gueye di nuyu Omar Sarr xam nga di nuyu waa Touba fàttewuma kenn samay xarit macha allah góor ñi ak jigéen ñi di nuyu ñëpp Cheikh macha allah. jërëjëf euh, Cheikh borom produit yu baax yi kontaan bu baax a baax ànd ak yow fii ci Dubaay doon def émission bu neex a neex a mm. bu baax baax nga ma jox la numéro bu mujj ci mm. Cheikh borom produit yu yi balaa boobu maa ngi gërëm tamit euh, kii. di mam Baye Ndiaye jëkkëru ci Ndiaye. Mhm. mu ñëw fekk ko Dubaay tamit muy ku baax. ku mën a taw sonn ci nit ah. dëgg la walaay waaw di ku mën a sonn ci nit. waaw ah. moo mu am xalaat yu rafet. ñu ngi koy mm. gërëm bu baax a baax a baax. ak Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne tamit. Mm. Euh, ku ko fekk Dubaay dina la topp dool ci dëkk bi topp dool la bu baax. Mm-hmm. di sun xarit di sun lépp. di jaajëfal tamit euh, Adja Kouna Fall di promoteur immobilier nekk fële ci yéen baax yéen ñu àddina ak li ci biir ak Ndeye Binta Makamu. Euh, madame Seck borom xaar yàlla léegi mi ngi Maristes ak Amina kebe Mbetteel waaw du suñ dëkkandoo bu baax a baax ak ki ma abiyee di Awa Fall ak euh, Sabel ñoom 428 19 35 Awa Fall ak Sabel ñoom ñi ngi ci Liberté 6 euh, borom Delta gërëm nañ ko bu baax baax équipe technique bi ñu àndaloon mais balaa boobu yow numéro Cheikh bu mujj ci biir émission bi 78 475 06 06 78 475 06 06 beneen bi.

Cheikh produit l'officiel ah. non page Facebook bi même boo defee Cheikh borom produit baa dina ñëw mais cosmétique la beauté américaine la. cosmétique moo benn femme bu benn bu xonq moo fa nekk. Instagram bi. Instagram Cheikh produit. moo fa ah. nekk ah, wala Cheikh produit l'officiel ñaari boo ci biir da gis Instagram ñaari compte Instagram moo fa nekk. Ah. yoo xamante ni moom. mën na am tamit ay am na ay compte fooy ay compte faux compte. yu toppandoo account. Mm. du man mais compte bi boobu duggee bari na abonné benn bi 1 million abonné ma nga fa. Mm. benn bi 10 mille et ma nga fa. yeneen ñi moom bari abonné ñoo xamante ne macha allah pour ñu bàyyi xel tamit ñetti numéro yooyu laa am. Mm. nañ ci war a jot. képp ku woo keneen nag keneen moo lekk sa xaalis wala keneen parce que ñett loolu la am fii na kenn du ma yor sa xaalis tamit ma lay ñàkk fa wala ma si tëdd wala yooyu képp koo xamante jox na ma xaalisam li nga bëgg ma liggéeyal la ko di si jot si kàttanu yàlla ak mbaaxam te dina gaaw incha allah rabbi si kàttanu yàlla ak mbaaxam liggéey bu set te sell lañ yor seex xamuñu tappale xamuñu naxaate xamuñu nga avañ sa xaalis ñu lay bloqué

seen tradiction bu ñuy wax lépp. Mm. res na ko. Mm. ak déplacement yi amul coono mm. hôtel cinq étoiles nag. yëpp mu res ko. instant bi fii ñu defee émission sax nii. hôtel yi gën a rëy ci àddina bi gën a féete kaw. ci lañ bokk xam nga ñu ngi cent nangam étage mooy loolu quoi. kon équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade nekk ci bu Casamance. Euh, borom këru Ganga Wade. Euh, xarit xarmat nekk ci Baye Massamba Diop nekk ci équipe technique bi ummi kana yi yaayam am saay Baye Massamba Diop yi. maamam Cheikh Abdoulaye rakkam mandaway magam moo nekkoon ci montage Moussa Moussa saw Petit Sow nekk ci equipe technique bi émission bu ñu defee Dubaay ak Cheikh borom produit yu baax yi bii muy ñetti yoon ñuy ñëw te dañuy dëkk ñëw di dem faneen di doon dem Omar Europe Amérique Asie Bénin Angola Congo Tunisie hmm. ah, Jamaïque fu ne dinañ fa dem ci àdduna ak Cheikh borom produit yu baax yi ndax macha allah mais baat da nga xew xew xew da ngay ndamu wala da nga ciy sant xew xew àdduna bi di la coow yàgg bés taalibe laa jàpp yi nga def nii kaay max la nag sëriñ bu tagawu taxawul fu wóor ba jéem ko engagé lu ko ah. dal yàgg ko teg ba yàgg xalaat loolu ah, comme mu xool li nga def rek mu bëgg a jël équipe bu tegtal ah. ku fi ànd ak beneen kii tamit ba ñëw fi beneen site wala beneen télé def loo man rek def loo man boo ñëwee pare di nettali naan demoon naa Dubaay yaa ko def de lépp la na nekk lu naturel rek kon xewal dëkk ah, loraa nga dakk loraa nga dakk ñu naan sooy nax de naan nuyu waa Tektal yëpp waa Tektal yëpp kontaan nañ ci yéen bu baax a baax kontaan nañ ci yow yal nañu yàlla hmm. ndax nga nekkal neex nga àndal mhm. te yëpp boo ko doon def boo rek di lor askan wi tamit dañuy mer mais comme yaa ngi leen di jëriñ mhm. te kenn kalaam yi ñoo yow dañuy sant mhm. di kontaan boo nu indi woon fii di nu toppatoo ba pare client yi di ga bekk noonu yokk audio ngay dégg nit ñi wax lu bon rek kon fi nekk nii yàlla def na sutura sa lépp yaa ngi koy teg ci yoon yàlla yàlla gën a barkeel gën la yëkkati aar gën la sàmm ba nga gën a mën a jëriñu ba nga am àgg ca kaw ca kanam barke Seexu Xadim kéw dikk loraa nga dak Seex